سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل أتحدث بنعمة الله سكر وتركه كفر وعلى آله وصحبه سوي المآمد والكرم ورضي الله عن شيخنا شاهب الغدمية والكدمية أبي العباس بوكي ديل siyaar nañ ak yéen suñu émission قبني dañ koy def saa su nekk ci IM télé tey nag suñu waxtaanu tey suñu tomb tey ñi ngi jàngale laylatul qadri laylatul qadri lañ bëgg def suñu tomb waxtaanu tey fii nag ci daara ji tey lañ koy defee waxtaan bi ànd seet suñu caméraman yi ak mbokki taalibe bi yépp ci daara ji nga xam ne ñu ngi ko samp fii ci Kër Massar si unité 6 tuddee ko mawridu rida muy root waaye ngër kon mbóotam tur boobu ak sirub tur yàlla na ci feeñ mbokk yi laylatul qadri yàlla indi na ab saar ci alquran tuddee ko inna ansalnaahu fi laylati lqadri wa ma adraka ma laylatu lqadri yàlla nee na yow muhammad sallallahu wa sallam ñoo wàcce ci yow laylatul qadri ñu ko wa maa adraaka maa laylatul qadri lan mooy laylatul qadri mu ni laylatul qadri xayrun min alfi sahrin mu ni laylatul qadri guddi la goo xam ne moo gën junnee weer tanazalul malaaikatu alquran nee na laylatul qadri malaayika yi dañuy wàcc wa ruuhu ak jibril bi isni rabbihim bu ñu wàccee ci bisu laylatul qadri ci guddig laylatul qadri seen wacc lepp moy dañuy ànd ak jamu. di ñaanal jamm ñi nga xamne ño nek ci barabu laylatul qadri ba ba fajar xar moto alquran na min alfi sahrin mo gën junnee wer kon deug deug su fekke yalla wacce na ci wéru koor bis bu mag guddi mag di laylatul qadri ne mo gën junnee كن كنك ورنا فوغلو بيس بوبو نون ليلة القدر أنسى إن أنسلنا في ليلة القدر القرآن برام قم قمي دنيا دفواتي جملة واحدة من لوح المحفوظ كرك بكو يالا بنده يالا دفكو واتي لب لب لب تلو المحفوظ إلى السماء الدنيا يالا دفجل القرآن القرآن mu baxee ko lawul maafuus mu teg ko ci baytul issa baytul issa boobu ci lañ arrêté woon maanaam alquran jibril nag alayhi salaatu wasalaam événement bu jotaan rek mooy dem jël ci alquran la tolloog événement ba ñëw jàngal ko yonent bi sallallahu alayhi kon keroog ba nga xamee ne alquran ji wàcce nañ ko maanaam ca baytul issa nekk na fa ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne nii jamono bu nekk jibril di ñëw di am lum ci jàngal yonantu bi sallallahu alayhi kon dëgg-dëgg su fekkee alquran jooju moom lañ wàcc ci alquran euh, moom lañ wàcc ci weeru koor yàlla indi indihaat guddi gu màgg googu mooy laylatul qadri dëgg-dëgg guddi gu foor la laay ji njëkk a wàcc ci alquran borom xam-xam yi wax nañ ne mooy iqra bismi rabbika alladi nga taxaw foofu def jàngat bu sew mooy lim lay jàngal mooy kenn ku nekk war naa jàng sa turu borom xam ko ndaxte mooy njëkk mooy laay ji njëkk a wàcc iqra bismi rabbika alladi borom xam-xam yi ñu ne laay ji mujj a wàcc ci mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allahi summa tuwafa kullu ma kasabat wa hum a wàcc yàlla wax ne na ragal bis nga xam ne kenn ku nekk danañ la delloo ci yàlla te bis bi nga xam ne képp ku doon dund rek danga nga faatu te duñ ci tooñ kenn borom xam-xam yi ñu ne laaya ji moo mujj wàcc ci alquran kon jaam bi ci ñaari maqaama yi ci lay dox ci diggante jàng ak ragal boromam su ko defee rek bu boobaa su dajeeg boromam boobaa dana am laylatul qadri koo xam ne xayrun min alfi sahrin bi sallallahu alayhi wa borom xam-xam yi wax nañ ne dund na juróom-ñaari fan gannaaw ba laaye ji wàcce wattaqu yawman turjauna fii ilallahi summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat wahum laa yuslamuuna borom xam-xam yi ñu ne keroog ba laaye ji wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari fan la dund dellu xaybu kon daf doon jàngale ne yonent bi laaye ji am na fu mu ko tolloon kon kenn ku nekk war naa bàyyi xel maanaam laylatul qadri ci boppam di ci ragal yàlla maanaam di ci sabal yàlla di ci ñaan yàlla alquran sax waxaat na ne inna ansalnaahu fii laylatin mubaaraka mu ne ñin ñoo wàcce guddi goo xam ne guddi gu barkeel la guddi gi nag borom xam-xam yi wax nañ ne laylatul qadri guddi la goo xam ne xaj du ci bëw guddi la goo xam ne ndox mu naqadi woon dafay neex guddi la goo xam ne dégg du ci jame te dégg dégg bu laylatul qadri jotee danga gis maanaam xaju di bëw mooy laylatul qadri fexeel ba bu jotee jikkoy xaj yi nekkoon ci yow fexeel ba keroog maanaam bum sab mooy amal jikko ju lewet amal jikko ju baax mooy sababu xaj du ci boobu ñu ni dégg du ci jame fexeel ba bu laylatul qadri jotee sa làmmeñ wi bu ci yëkkati kàddu gu ñaaw goo xam ne dafay jam nit wala dafay lor nit ndox mu ci naqadi woon dafay neex mooy fexeel ba guddig laylatul qadri bu jotee lépp loo xam ne dafa laa naqadi woon ci nit fexeel keroog maanaam mu neex la ci guddeeg laylatul qadri kon loolu mooy xikmatu maanaam ñett yooyu ma jàngal la ci jàngale yonentu bi sallallahu wa sallam wax na ne e, man qaama laylatul kadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min sanbihi wa ma bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xam ne taxaw na laylatul qadri jot nga dem fekkee ji fa ñuy defee laylatul qadri li la tax a dem mooy danga am gëm yàlla ngir sàkku tiyaabo sa mboolem bàkkaar yu njëkk ak yu mujj yi yàlla def la ciy jéegal léegi nag mu des laylatul qadri yan suur lañ koy def yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne taxaraw laylatul qadri fi asril awaaxiri min ramadaana yonent bi nee na laylatul qadri na ngeen ko natt ci fukki fan yu mujj ci weeru koor moo tax ñi ci ëpp bëri ci fukki fan yu mujj yi ci lañ koy raas am na beneen hadis bu ñëwaat ne iltamisuwa fi asril awaaxiri na ngeen ko dàkk ci fukki fan yu mujj yi boo demee ci lenn ci borom xam-xam yi wax nañ ne soo demee ci saaru inna ansalnaahu fii laylatul kadri ñetti laylatul qadri ñëw na fa laylatul qadri bu nekk maanaam boo ko compté juróom-ñeenti xaraf lay ñetti laylatul qadri soo ko compté benn bu nekk nekk juróom-ñeenti xaraf daf lay jox 27 maanaam xaraf ñu ne moo tax ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñu ne foofu lañ taxaw ne laylatul qadri ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la moo yonent nee iltamisuha fi asril awaqiri fukki fan yu mujj yi daal heure boo ci defee ca laylatul qadri rek yow tombee ngaak laylatul qadri ci lenn ci jàngalee borom xam-xam ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa bu laylatul qadri jotaan kaana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettahidu fi ramadana maa laa yettahidu fi gayrihi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam su weeru koor terwaan daf si daan góorgóorlu góorgóor goo xam ne da ngay foog ne sax ni muy góorgóorlu ci weeru koor du ko daan góorgóorloo ci yeneen weer yi waaye nag mu ne rawatina fi asri al awaaxiri minhu maa laa yettahidu fi gayrihi mu demaan ba fukki fan yu mujj ci weeru koor nga xam ne ci lay laylatul qadri maanaam nekk da nga gis yonentu bi sallallahu alayhi wa dafay def effort bu baax xam ne maanaam guddi gu màgg gi jot na guddi gu jodna, gi jotna na gi jotna kon guddi googu mbokk mu ngi daw di ñew ñin ñep nañ ko mang ci jang alquran nañ ko mang ci sabbal nañ ko mang ci julis yonent bi nañ ko mang ci def ay nawafil bu yalla yàlla danañu jéggal ci ñu mboolem bàkkaar yi yàlla danañu dindil mbolem manam recc recc yo xamne defo nañ ko ak manam jangoro ji nga xamne nek na fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak wax na ne bis bu laylatul qadri joté na ngeen jang ñaan gi yonent bi wax na ne iza jaa laylatul qadri qaalu allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu la yonent wax mu ne buñ demee ba laylatul qadri jot ñaan gii kenn ku nekk war na koy ñaan mooy lan allahumma yow yàlla innaka naka yow afuwun yaay jéggale yow yàlla yaay ki nga xam ne yaa mën a jéggale tuhibbul afwa ñun de bëgg nañ nga jéggal ñi fa'fu anni nag ñi jéggal kon gis bis la boo xam ne guddig njéggal la guddig ñaan yàlla la léegi nag mu des nan la ñuy ñaanee yàlla lu tax léegi ñiy ñaan yàlla yàlla nangulul ñi dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax ibrahim ibnu adham dafa am ay ñooñ dañuy ñëw na ko maa baalu naa na nad'u fala yustajaabu naa ñun daal lan mooy suñu problème ba bu ñaanee yàlla yàlla du ñu nangul ibrahim ibnu adham dindi ñett fukki tomb yoo xam ne na ko lii mooy seen problème ba bu ngeen ñaanee yàlla yàlla du leen nangul wax naa la sànq ma ne la laylatul qadri guddik ñaan la ibrahima doom ne ko yéen lu tax su ngeen ñaanee yàlla yàlla du leen nangul da ngeen am fukki problème yu nekk ci yéen fukki problème yooyu incha allah moom la ñuy jukki mu ne araftumullaha falam tutiihu yéen daal xam ngeen yàlla waaye du ngeen ko topp loolu moo tax bu ngeen ñaanee yàlla yàlla du leen nangul kon bokk na ci laylatul qadri nit ki na ñaan yàlla yàlla nangu ko balaa ngay ñaan yàlla yàlla nangul la d'abord day fek nga top yalla soko ko mu nangul la benen bi moy wa rasul fa lam tuttabi'u sunnatahu mune ko xam ngeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne yalla ko yonni waaye top len sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ndaxte ñu ci bëré bëri lepp lo xamne ne sunnaa yonent bi la duñ ko def motax tax buñ ñaanee yalla yàlla du ko nangu ibrahim ibnu adam ni su ngeen sungen su ngeen ñaanee yalla yalla nangul len kon guddik laylatul qadr mu ngi ñew guddik nangu ñaan la suñ bëggee yàlla nangul ñi nañ topp naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa araftumul qur'ana fa lam bi bihi bokk na ci point bi nga xam ne mooy tax bu ngeen ñaanee yàlla yàlla du leen nangul mooy xam ngeen ne dëgg la waaye du ngeen ko jëfandikoo kon suñ bëggee yàlla nangul ñi suñu ñaan ci laylatul qadri nañ jàng alquran di jëfee la muy waxee bu boobaa guddik laylatul qadri bu jotee bu ñaanee yàlla yàlla danañu nangul mu ko wa akaltumu ni'amallahi falam tu'adu sukuraha yena ngi lek ci xewal yalla yi di dund ci xewal yalla yi waaye du ngeen sant yalla moo tax su ngeen ñaané yalla yalla du leen nangul jamono bi ba weeru ko de ba ba weeru commencé ba légui kenn ku nekk yalla ng lay xewalal lo lek lo nan lo saraxé lo défé lu ne kon fay jaar bu guddig laylatul qadri joté nga sant yalla manam ci mayuy mu mayon la may na la wër nga joxe farata gi so sante yalla bo ñane yalla yalla nangul la mu wa ariftumul jannata falam tatlabuha xam ngeen ne aljana dëgg la waaye sàkkoo len ko mota bu ngeen ñane yalla yalla du len nangul benen bi moy wa ariftumun nara falam taarabu minha xam ngeen ne safara yalla ko bind te moy kër ak way ci kep ko xamne da ngay def lo xamne neexu yalla te sakku len daw safara jamono bu nek yéen ngi nek ci lu neexul yàlla moo tax su ngeen ñaané yalla yalla du leen nangul ba ci wax ibrahim ibn adam muni wa ariftumu seytaana falam tuharibu minha wa wafaqtumu xam ngeen ne seytaane moy manam mindeef mi nga xamne lu ngeen nek mu yakal leen ko te du ngeen ko daw jamono bu nek yéen ngi jonjoog mom yéen ngi riisoog mom moo tax bu ngeen ñaané yalla yalla du leen nangul mu wa aniftumul mauta falam tastaidu lahu xam ngeen ne dee deug la ta préparé wu leen jëm ci mom jamono bu nek yéen ngi sagane dee jamono bu nek yéen ngi nek ci lu neex moo tax su ngeen ñaanee yalla yalla du len nangul mu wa dafantumul amwata falam ta'tabiru su ngeen sule nit bu génnee aduna rek fat ngeen ki dee won yéen ngi nek ci lu dengan neex du ngeen ku dee di ngeen fàttale ku ku dee ngeen mën def lu baax lii moo tax maanaam su ngeen ñaanee yàlla yàlla du leen nangul beneen bi mu tëjee fukki tomb yi mooy wa taraktum uyubakum wastaqaltum bi uyubi naaj yéen a ngi bàyyi seen ayib ba pare di soxlawoo ayibi jàmbur yi gis nga danga gis nit mu fees dell ak ñaawteef fees dell ak ay ayib fees dell ak ay bon bon waaye bu tegee ataaya la ataayam bi mooy ci ay bon boni jàmbur ci lay nekk ci ay ayibi jàmbur ci lay nekk ci ay sikki jàmbur ci lay nekk Ibrahima ibnu Adham nee na yaa ngi bàyyi say ayibi bon bon yi nekk ci yow di wax ayibi jàmbur soo ñaanee yàlla yàlla du la nangul comme ñu ngi jëm ci guddi goo xam ne alquran nee na laylatul qadri xayrun min alfi sërin képp koo xam ne nii jikko yi mu ngi woon ci yow fexeel nga raxas ko ba mu set maanaam topp melokaan yu rafet yi soo ñaanee yàlla yàlla dana la nangul euh, suñu maanaam fanaan ci der ba ba set boo xëyee nekk ci deri jaami yàlla yi yàlla du la nangul kon soo fanaanee ci der ba ba set boo xëyee séexlul deri jàmbu yàlla yi soo ñaanee yàlla yàlla dana la nangul kon lii mooy tomb bi nga xam ne tënkoon nañ ko doon ko jukki ci laylatul qadari kon ñi ngi yaan yàlla guddi googu bépp xiiw ak bépp tiyaaba ak bépp yool boo xam ne yàlla dële na ko ci rek yal yàlla boole ñu ko ñun xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi إن أريد إلى الإصلاح وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته